أعوذ بالله min الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ñoo ngi leen di nuyu ci seen tur yépp di wéyal sunu pas-pas ci suñ silsila bi di leeral ni alxadimu nekkul woon ci sunna doonte moom wax na ci ay téeréem ni day yeesal sunna si yenente bi sallallahu alayhi wa waaye nag boo xoolee aw doxinam ak nam daan yare ak nam daan jàngale ca ko toppoon lam leen daan gëmal dafa wuute ak ni yenente bi daan yare saxaabaam ya ak nam leen daan jàngale kon nag e, jamono yee weesu am nañ luñ leeraloon waaye nag tey nag dañuy ñëw indi sëriñ bi naka la def ba not mbooloo mi ba yilif leen e, ba ñu topp ko incha ndax bu ngeen seetloo ni moom Cheikh Ahmadou Bamba ci jamono bi nga xamante ni sii way juróom wu góor nekk na fi ànd naa ak moom lu toloog fanweeri at laa yuqiimu wala yaqumu maanaam taxawalul dara waaye nag ci biir loolu eh, daana dem ci dëkk bi ñuy wax tuubaa daana jóge Mbàkke xam nga moom Mbàkke la juddoo fa la nekkoon ba xaw a dëgër waaye nag ca jamono yooya ci bi muy toll ci euh, ñaar fukki at jàpp fukki ak juróom-ñett daana dugg ci àll bi àll Touba boobu am na genn guy gu ñu xam muy muy muy guy siyaare lañ koy wax guy ko am ay bunt mu daa dugg ca ca biir lëm ma daan commencé nag daan def ay wérdu maanaam comme ni ko gaa yi defee di làqutu foofa di wéet euh, ba gaa yi bari wax nañ ni sax jamono booba boo ko gisee da daan mel ni koo xam ni maanaam daa àndut ak sagoom am lu mel nii saaru ndofte da ko daan dugg euh, kon jamono yooyu comme ni gaa yi wax naan dafa tolloon ci fànnaawu ca jamono yooya ngir ma wax leen rekk ni ngeen xam li may bëgg a wax dama wax ni mbooleem ku ngeen gis ñu di ko topp maanaam mu yilif mbooloo mbooloo mu bari di ko topp balaa moo not mbooloo ma jaamu na jinne ba jinne yi jox ko ay secret yoo xam ni ci la man a note mbooloo ma te koo fi gis nag ñu di ko topp laa la wax soo xoolee cosaanam ca laata muy woote la ko jiitu daana jëfandikoo lu mel ni dugg ci ay ruq di def ay ay ay comme nuñ ko tuddee ay xalwaag yu ni mel bañ bañ koy wax sax naan daa tàggoon ak sagoom mboolem koo fi gis ñu koy topp rek mu yilif mbooloo jaar na ci lool yi may wax ni képp koo gis mu not mbooloo ba mbooloo topp ko ci fànn bu manti doon nag ci lu jëm ci ay karaama mu wan leen karaama bañ gëm ko ci karaama mu wootee ci mbooloom bañ fekk ko xamal ni kooka jaamu na junne te nag euh, loolu yaatu na yaatu na lool ndax boo xoolee ñii ñiy topp tey Euh, di leen wax ni ñoom ñooy mag ñi waaw comme niñ koy waxe suñu mag ñi dëgg la ñoom ñoo leen tuddee ay mag waaye ñoo ñu day boo xoolee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg seeni cosaan koo ci topp rekk jaamu na junne ba doog am loolu yi incha allah xam naa audio bi day gudd waaye ma ñëw ci beneen audio mbokki alquran lii wéral sama wax ji ci ni alxadimu wooteem bii nga xam ne woote na ko ba mbooloo wuyu ko bam not nit ñi loola du nen loole ay jinne la jëflanteel ba tax mu mën a not lii wéral sama wax ji mooy alxadiimu amoon na ay way ndara xam naa dinaa ci wax lu yaatu waaw alxadimu amoon na ay way ndara yoo xam ni da ko daan jëfandikoo ba pare di ci jox ay nit ay secret te yéen ñi nga xamante ni si yéen a déglu ñi nga xamante ni jaar nañ ci asraar te ñoom ñu tudde ko ismu asraar noonu lañ ko tuddee way dara ku ne xam na ni ay secret la yoo xam ni eh, li ñuy woowee rawxaan ñoom ñoo leen koy jox te rawxaan ku ne xam na ni eh, jinne la yoo xam ni eh, am na sax ñuy leen di woowee kayaafiil waaye fokk rek nga jëflante ak ñoom ñu doog laa jox la nga xam ni mooy eh, secret ya incha allah kon bu ñu waxee ni alxadiimu ci sunna la nekkoon te mu daan jëfandikoo ay way ndara di ci faj ay aajo yi nit ñi ba noppi wëlbatiku daa ko joxe maanaam di joxe secret ya kon bu ñu waxee ni ci sunna la nekkoon loolu lu doy waar lay doon te lii ma wax nii lu am la sëriñ bi moom alxadimu da daan bind da daan bind ay téere di joxe ñuy takk mu daan bind di joxe ñuy naan mu daan bind di joxe ñuy sangu mu daan joxe ay secret ay nit ñu ciy faj aajoy jaam ñi loolu alxadimu da ko daan def alxadimu da daan def lu ñu wax ramli li nag gisaane la mooy ay tomb yu ñuy def ci suuf te tombam yooyu dañ ko tudd ay tomb waaye looloo ramli la alxadimu da ko daan def te yii ma wax yépp dinaa ci indi ay yaatal ak lu aju ci way ndare alxadimu yooyu yi ak ay jinne yoo xam ni daanu ñu jëflantee ak alxadimu ak li aju ci way ndara yi alxadimu mooy ay sekkereem ci jamono bii ki ko dondu ginnaaw bi mu faatoo dinaa leen leeralal way ndara wa kan moo ko dondu ba niñ koy dondantee ba heure bi way ndara wa ah, ba fi mu ne nii naa leen xibaare ci loxo ko mu nekk yéen borom xam-xam yi ndax yenente bi amoon na ay way ndara ndax daana joxe ay way ndara te mooy ay secret ay xaatim ndax yenente bi daana bind joxe ñuy takk ndax yenente bi daana bind jox gaa yi naan ndax yenente bi daana ramli tomb ay ramli ci suuf ndax yenente bi daana joxe ay secret ay xaatim eh, di ko joxe mooy te mooy way ndara su ko defee nit ñi ñam koy jox ñu ci faj aajoy jaam ñi ndax yenent daana ko def yenent di daawul def loolu te kii ñu ni woon day yeesal sunna si yenente bi mul alqadimu loolu da ko daan def ci lu wér insha allah ak jinne yi nga xam ni ñoom la daan jëflanteel yooyu yëpp insha allah dañ ci def ay leeral ndax silsila bi bokk na ci comme ni ma leen ko waxee ci silsila yi may mujj a def insha allah ci li may leeral euh, bu ko defee may ñaan yéen bokki alfurqaan na ngeen topp silsila bi ndax silsila bu am solo la ci fi may bëgg a dugg ak yéen nan la sëriñ bi def ba not ba mbooloo mi topp ko ma indi ci ay argument yu leer incha allah ki nga xam ne di moom lañu wax ni moom ci sunna la nekkoon eh, may indi nag ci ni moom woote woo woon na ko waaye nekku ci woon ndax yii nga xam ne yépp daana ko def yenent daaw ko def incha allah lii dëggal ci ni sëriñ bi daana bind ñuy takk latjoor Joor buurub Kajoor daana ñëw ci way juram mooy Maam Mor Anta Sali moo nekkoon ab xaaleem waaye Lat Joor bu daan xeexi yim daan takk sëriñ bi moo ko daan bind ci lu wér te ñoom sax boo delloo ci seeni siira boo demee ci seeni siira eh, ci siira sëriñ bi ña ngay wéral lu mel noonu kon ñoom ñu ngi koy wéral ci ni Lat Joor bu daan xeex lam daan takk loolu sëriñ bee ko daan bind ci loxoom ci ndigalul way juróom kon loolu boo demee ci seeni siira ci siira sëñ bi eh, ña ngi koy dëggal lu mel noonu di ko saxal kon loolu lu am la waaye dinañ ci indi nag yeneen yi gën a reer incha allah bu beneen yoon yi assalaamu aleykum wa